voilà donc lan nga ñu mën a wax tey monsieur Mbaye ci camp de vacances bi nga xam ne monsieur le maire ak pare na école yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi de Thiaroye Kaw yëpp tey macha leen di gërëm d' abord. Mm-hmm. Euh, ci seet bi ngeen ñu seet si tey. pour ñu waxtaan ci ñaari activité yoo xam ne. Mm-hmm. Euh, ñaari activité phare la yoo xam ne. Mm-hmm. maire daf ko daf ko daf ko financé. muy cours de vacances defoon na ko daaw. ak camp de vacances. cours de vacances bi nag euh, bi mu ko taxawalee bi mu ñu jëlee initiative bi mm-hmm. daf ñu ko dénk man ak Saliou Diallo mm-hmm. euh, le président de la commission éducation dafa jàpp ni mi ngi ci école yi actuellement nii mm-hmm. euh, dénkuñu ko ak ñoom Amath Thiam ak l'amicale des élèves et étudiants de Djiddah Thiaroye Kaw donc cours de vacances yi c'est du CI à la terminale Donc, euh, Monsieur le maire a mobilisé Mamoudou Gueye. Mm -hmm. Il a mobilisé plus de 90 enseignants, professeurs comme instituteurs. tey jii ñu ngi ci école yi. est l' organisation est dans dix sites. Mhm. dans dix écoles différentes. donc euh, mu investir ci nag xaalis bu bari parce que xam nga fay quatre-vingt-dix enseignants yomb. donc euh, di ko ci gërëm. di ci gërëm vraiment Modou Gueye. ci li muy def ci éducation. Mhm. parce que commencé wu ko tey cinquante deux waaw man maa ngi tudd Aline Badara Thioub je suis le directeur de l' école Médina Gounass 1 ex moo bon ci cours de vacances yi maa ngi fi jiyee fonction superviseur. waaw initiative bi de initiative bu baax la. bon mën naa ni sax maire fi la ko fekk. parce que ñu ngi doon def cours de vacances même avec l' ancien maire. mais adduna aussi lu ñuy wax ku yokkul yaa wàññi. bon d'année en année nous voyons que cours euh, de vacances yi mi ngi gën a am accompagnement mm-hmm. parce que avant muy démarrer ñun en tant que superviseur ànd ak suñu inspecteur de district mm-hmm. toog nañ réfléchir pour harmoniser mm-hmm. parce que mënuñu bëgg a def ay cours de vacances mu am impact te amul travail d'harmonisation boobu te biñ ko defee ànd koog inspecteurs yi ñun superviseurs yi en tant que les directeurs d'école ñu réfléchir ci yan discipline la ñuy travailler ak ban emploi du temps la ñuy travailler véritablement daal biñ ko essayé gis nañ ni y a un plus et en dehors de cette réflexion sur le, le programme maire accompagné nañu aussi par logistique matériel didactique indil nañ ñu keesu craie donc craie moom fii ba cours yi di jeex kenn du ne awuma craie hmm. joxaale nañ ñu aussi keesu rame de papier. Euh, je m'appelle Modou Kagnan waa je crois que d'abord uh, pour commencer dama koy remercier moom monsieur le maire. moom parce que c'est une très belle initiative. le mhm. fait d'organiser des cours de vacances. parce que au lieu ñuy bàyyi xale yi ñu toog kër googu la ñuy def na ko sudul noonu. je crois que ñu leen di regrouper pendant les vacances ñu ñëw di def ci cours bi cours de vacances. je mhm. crois que c'est une bonne chose. Mhm. waaw. Oui, oui, comme au niveau de la commune de Djouda Kaw, bon, les collègues ne vont pas me démentir. Mm-hmm. pratiquement chaque année pour ce qui nous concerne ñun suñuy euh, suñuy euh, examen. Mm-hmm. bon chaque année la commune de Djiddah Thiaroye Kaw bon pratiquement moo jël paie au niveau de toute la circonscription de Pikine. bon te loolu tamit bon yii ñuy def tamit daf ciy impacté. Mm-hmm. waa bu baax a baax a baax. bon vraiment de la craie mm-hmm. am nga des rames de papier mm-hmm. te loolu lépp daaw amuñu ko woon mm-hmm. donc kon euh, bu ñu def rek lu dul gërëmaat ko encore une fois de plus di ñaan yàlla tamit chaque fois tamit ñu koy yokk parce que tamit comme on dit ku dolli ca ku dolli cere dolli ñeex Modou moo leen ko may lii bu leen ko may woon da ngeen di dem di fay te amaana gàtt gàtt gàtt di ngeen fay ñeenti téeméer wala juróomi téeméer wala juróom benn téeméer wala sax junni ndax am na ñoo xamante ni ñu ngi fay lu ëpp loolu moom mu defal leen ko gratuitement ci loo xamante ni xëy na peut-être xajoon na ci moom